loo xam ne dafa bett sénégalais yu bari parce que gisuñu photo gisuñu publication euh, gisuñu dara loo xam ne rek fuité na ci mariage boobu euh, ki nga xam ne nii nag moom moo joxe xibaar boobu di benn taskatu xibaar euh, ba nga xam ne nii moom jot na avancé bu baax a baax ci li nga xam ne ni moom moo di sujet boobu parce que dem na bay wax famille bi nga xam ne fii la Sadio Mané takkee soxna mu di homme de confiance am bi nga xam ne moom la dénkoon ay centième fii ci Ndakaaru famille bi sant Tamba doomam la Sadio Mané takk du ay kaf nii quoi c'est vrai. en tout cas en tout cas déggoo ma ne la avancé na bu baax a baax ci sujet bi. Uh-huh. Euh, mu ngi xam le aussi moom Mamadou Lamine Cissé je pense que xam ngeen ko di ab taskatu xibaar moom moo def post boobu ci Facebook. Uh-huh. mu ngi xam le aussi que ni imam bu yi moom mooy ñaan si woon soxna si. c'est-à-dire avancé na ba joxe ay détails. Hmm? bu dee dëgg la bu dee dëgg la. bu dee am na. Uh-huh. na yàlla barkeel. amiin en tout cas daal defee na ko moom ni mu bindoo. ndax nit nit ki ni mu bindoo xëy na noonu la defee daal te Sadio moom loo mën li des ci sa dund di nëbbutu di làqatu def ko ci réew mi ñu nekk nii. buñ la xamal dara ngir yàlla. bu ma soñoon sax bul nangu kenn photo daa mel bu dee dëgg la daal <laughs> buy génn sax ah. na muuru en tout bett na nit ñi si benn côté nu mu leen bettee moom moo di que Euh, amul fenn foo xam ne gis nañ photo vidéo wala genre wala lenn loo xam ne nit ñi wax nañ ko ci mariage boobu lu dul ni que information bi ñu ci jot et que gis nañ bi information bi jibee mu jur ay questionnement yu bëree bëri li tax nag bettul nit ñi moom moo di à chaque fois danga doon faral di dégg Sadio Mané surtout bi ñu doon wax que dafay doxaan Zeyna Ndour daf koy waaja a takk euh, benn jour génn na mu tontu tontu na quand même mu ne moom bis bu demee bay takk dafay takk koo xam ne kenn xamu ko expliquer maanaam critères yi nga xam ne moom la bëgg si jigéen mm-hmm. et du tag koo xam ne ku siiw lay doon kuy nekk ci réseau yi ak yu demee noonu loolu moo tax bettul kenn que tey jii bu ñu demee ba euh, gis Sadio Mané euh, bu ñu nee takk na wala takkul jabar bu fi génnee ne takkuma <laughs> lu ci mënti am daal ñu ngi koy ñaanal jàmm ah. di ko féliciter bu fekkee takk na jabar ñu ngi koy souhaiter heure ménage yàlla def mais yaa lii baaxul lii day tas yaakaar parce que ñi doon xaar bari na <laughs> lu ci mënti xew daal ñu ngi koy souhaiter heure dee jabar soxna si wax ni ko am na